Dakar waaw nuyu naa la. fay naa la fay naa la waaye ji. ci loolu ne foo toll. waaw maa ngi si wàccaay bi rek problème adversaire laa ma looloo ma jaaxal nag yow. adversaire. ak làmb ni mu mbër. man xaw man su ma doyoon numéro est-ce que kon naa bëri te man nii ma toll am problème adversaire su ma doyoon numéro na laa war a kon doo la koo bëri. ma dimbali ngir yàlla jël ma maire bi daa sonn noonu ma dimbali. ñan ñan la war a dimbali jël la fi mu toll nii. léegi man ay bébé jën nan ñoo ñu bëri. ginnaaw ay njaay. mën ngaa lekk la koy deretu laay waxee bu ñëwee ma jëlal sama yaakaarum tabaski pare naa alaan ma ni war a mooy nele dama di ko fi mu leer dama jël ko mu ñëw boo ñëwee yegg affaire bi maa ngi nii taxaw ñu dem fa fekk bu leen neexee na ñëw ñu moo maa ngi nii loolu kay la de mooy yow ñoo ma jël ko boog nga jël Bébé Diène. maye ko kon de yaa mën ñooñu. kii moo la mën boo mënee ñooñu kii moo la mën. Eh, kii du sama bopp yow bu ak Seydina Mohamed ko jël. la ah, naa la. dégg naa la Bébé Diène kaay Bébé kaay. Bébé bi nuyu naa fay naa la. tey ma gis nga ànd ak ki nga xamante ne mooy Bébé Diène ànd ko tey ci làmb ji. làmb na ko. tey naka nga ko àndee mu ñëw saafara ay supporter fekk si ki nga xamante ni mooy Ada Fass. waaw mooy lamb la rek aussi yéen médias yi dañuy leen remercier ndax da dox ngeen si yu bari bari bari lamb la axlu lamb ñoo ko namoon moo tax tey mën na ko loo mënta def bàyyi lépp li nga def nga ñëw lamb ja saafoon tey tey supporter looloo ko fi indi. tey ñu gis bi mu ñëwee amateur yi jóg nañ supporter yi jóg nañ wan nañ ne dañ koo namoon. waaw tey moom looloo tax mu ñëw may ni ko lamb mu wër la gars yi dañ ko nam foo tourné ana bébé ana bébé léegi nag mën a xool lépp comme demee na noonu nañ dem stade nga saafoon teg say supporters mu jeex. dama dégg ne dañ koy wutal adversaire moment bi ñu tool waa ñu ngi koy wutal adversaire ñu ngi koy wutal ay adversaire adversaire yu bëri ñu ngi ko wutal dañuy delawaat avance am. ñu ah. bëri. booy bi nee na pare na pour jël caatu lan. caatu waalo. moom mu jëlee Ama Malika. caat caat caat bi. waaw ah. Manick mu ngi fi moo kay Manick. combat la. moom Manick kon Manick na koo jël. Manick lu muy ragal. xaw ma ko moom Manick combat la. combat la. bu bëggee bu bëggee bu bu bëggee. soo bëriwul dama jël bëriwul waaw bu bëggee. bu bëggee. soo bëggee woon Bébé Diène eh, bëri na ak Bébé Diène. Ah, ah, ah, su ma nee kay Bébé la mujjee daal. Bébé Diène xool xool gars yi fii la di wax. barki Seexul Xadim kuñ si jox sa avance boo xëyee suba kuy fayeeku 700000 boo xëyee nga laaj 5 millions alxuraan. li ma wax nag di wax Bébé Diène bu billaahi wallaahi bu ñu demee ba di woo sa ménagère. nan ma jox 200000 garaawul. doy na. bu ma joxee ma weer ko barki mu xam net lu ma réew du caaxaan. billaay wallaay bu ma seet seen mbërëg Bébé kaa dem ci Bébé Diène. Bébé Diène nuyu naa la. amateur yi dañ la namoon moonu laamu namoon la tey nga ñëw. waaw non non mais dama bëgg ñu wax. ma gis nga dugg si amateur yi jóg. supporter yooyu jóg ñu wane ne namoon nañ Bébé Diène bi nga dugg see gis loolu naka nga ko dundee. waaw sant yàlla xam na ne ñun ay ndaw la ñu ay avenir la ñu xam nga di woo adduna yëpp di leen jégaluwaat waaw di wane ne dañ ñëw dimbali ay ndaw la ñu jeunesse bi waaw. namoon nga làmb. namoon naa làmb. moom laa xam dama dégg ne sa avance ñoo ngi koy wër di ko joxe dégg maa ngi dégg Père Salam léegi nee na ku ci laaj ku ci fay ak 700000 bu nee Bébé Diène a nii nga ne 5 millions laay laaj lan mooy problème bi. waaw loolu waaw yeewu gu ma ko de waaw génn gu ma ko waaw instant aw lu may wax quoi waaw aw lu may wax instant après dinañ waxtaan képp ku ma a jël rek na woo samay mbokk xam nga instant sama raxay ñoo ma ànd fii wallaahi. lan ngay wax say supporter di leen nuyu di leen sant di leen déglu euh, di leen naa ci mais yaa kii combat la bañ mënu ma la bañ barke mu teg Yirwaal maa ko lekk dégg nga papaam papaam bu ñëwee Yirwaal di teg Tounoir diir bu mu teg maa ko lekk jee laa soxla mais est-ce que ñëwee nga ko man gisuma ko xool waay laa soxla tey. booy boo jëlee laa soxla sama mbër. Eh, na jël yokku coow su ma daanul Bébé Diène ma xam ne maa leen xaas la yokku coow mu ngi nii ngi noonu ànd ak Ada Fass le soutien de Gris pare nañ de noonu ñëw na ànd ak Ada Fass Gris Bordeaux lamba ngi noonu Bordeaux Gris Bordeaux ngay yow cay ñaabu ndaw waaye léegi ñaabu mag la nee na boo xoolee sama combat bi passé léegi xam ne maa ngi liggéey te duma di nelaw Ada Fass Ada Fass a ngay daw daa mel ni léegi mu noppi